jërë ngeen jëf amit téléspectateur people 221 yi ñuy suivre ñu ngi leen di di amaan mbégte jàkkaarloo waat ak yéen ci seen chaîne leader bi di ñaan réew mi suñu borom yàlla suñu borom doole jàmm euh, di ñu nuyu suñu kilifa di nekk suñu kilifa yi tey nag ma dalal koo xamante ni damay wax ni heure bu réew mi tolloo ci yëngu-yëngu yi rek day baax nga dem seeti kilifa yi nga xamante seen xam-xam màcc na ci wàllu xam-xam ah, kenn ki nag mu di Cheikh Thierno Dieng fas yéene si xam moom wàllu waxtaan ci actualité ak wàllu xam-xam sëñ bi dañ lay waaye nga nuyoo wasalaatu wasalaam ala asrafi mursalin seydina muhammad ibn abdullah salawatullahi alayhi wa ala alihi wa ashabihi ajmain wala hawla wala quwata illa billahi al ali azim yaa imtasi uxdir lana bi haasal maxdir wal taxtufi bi nasrati taxtuna bi safari ñu ngi nuyu mbokku askan bi yëpp senegal ak senegal sénégal waaye du ko jaare si bunt bi nga xam ne mooy people 221 hmm. wax dëgg yàlla mu nekk secret waaw mooy yéen ñu yor tur bi xam ngeen ko wala xamu leen ko. Mm-hmm. waaye people de Zawiya moom leneen la. Mm-hmm. kon nag ñu ngi ndokkeel tam yow miy laaj. Mm-hmm. nga xam ne yaa ñëw pour jox nit ñi xibaar pour jox ñu ñi njëriñ ñu ngi leen ndokkeel bu baax di la wax salaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu. fi may nuyoo euh, mu di wàllu actualité nga xamante ne jamono ji réew mi euh, tiit ñëpp tiit presque mu di meeting bi nga xam ne am na tey. ak suba ak gannaaw suba. sa jàngat ci programme boobu. ok alhamdulilah laaj lu am solo. ndax dañ na people 221 meeting bi yaakaar na people bi ñooy génn pour wax ak pippul ba léegi wala kenn si askan bi mooy génn pour jàkkaarloog mboolem askan bi. Mhm. am lu mu jëflante ñoom. Mhm. waaye nag mu làmboo politique waa ku wax politique da nga wax xam-xam da nga wax diina da nga wax lu bëri. Mhm. kon boo ma laajee si loolu damay sawar pour wax si waaye dégg naa nga wax baadu tiit kon réew mi moo toll foo xam ne yëngu-yëngu boo amee rek ñii dañuy tiit. kon na maa ngi wax askan bi na bu fekkee mitin la mitin baat bi lu muy firi mooy dajee waxtaan joxewante xalaat kon loolu dara nekku si sant yàlla la jaru tiit mm-hmm. ndax yaakaar naa ne kuñ jiital te ku mel ni Ousmane Sonko nga xam ne moo ko woote xool na mbooloom ne ñëw leen ngeen dajee man ma wax leen loo jaru tiit mm-hmm. gëm naa ne xam-xam la di wax gëm naa ne njub la di wax mm-hmm. gëm naa ne dal la leen di wax ci lépp loo xam ne jëm nañ ko bu fekkee ne tam na am na leneen luñ si ragal na si wàllu politique pexe xeex ak demee noonu kooku itam ba léegi jar na ragal waa jarul ragal. foog naa ne bu fekkee ne moom Ousmane Sonko si boppam nga xam ne tey mooy cool yi bu fekkee ne wax dëgg yàlla woote na wax ñi ñi xam-xam wax askanam yaa naa loolu jarul problème. Mhm. ñu ko xoolu itam pour jëflantee moom mu nekk la sees bi yaakaar naa ne itam bu fekkee ne si yoon la ñuy tegu problème warta am. askan bi ñoom dañu toog rek di déglu. Mhm. Mhm. kon le le siège boobu jàppoo ni ay jafe-jafe mën na cee am. jafe-jafe mën nay am si kaw bi ñu wàccee yoon bi loo gis dafa am yoon. Mhm. waxtu woo wàccee yoon bi muy le siège lu duwul la siège waxtu woo wàccee yoon rek problème day am. suñu wax ji bu ñu wàccee yoon bi rek wala caméraman bi wàcce yoon bi rek. da ngay gis ne image bi day yàqu. kon wàcc yoon moo baaxut. kon nag ñuy wax ne bu na Ousmane wàcc yoon. bu Seydi Macky Sall wàcc yoon. ndax yaakaar naa ne ñoom ñaar ñooy jàkkaarloo ñooy ñaari camps yi. kon loolu la ñu amoon lu wax si actualité ñu ngi wax suñu mbokk askan bi ne ñun peuple leen rek si askan bi lañ bokk. am neen nguur gu fi nekk tey moo ñu jiite. am na ku ñu yaakaar tey ëllëg. mu nekk suñu président moo xam Seydina Ousmane la wala ku do ñun moom lu ñu féetee mooy ku ñuy jiite nañu yërëm. nañu dimbale. ndax askan leen boo xam ne daa wax dëgg yàlla askan bi sonn leen. am na solo ci domaine bu nekk. am na solo waaw am na solo mu ngi noonu ah. Mm-hmm. ma ñëw ci li nga xamante ne moo di wàllu ñaan. Mm-hmm. su ma njëkkee mu di wàllu seet. Mm-hmm. seet tey damay wax ne mooy buntu ñaan. nit ki mënoo koo ñaanal te seetaloo ko. dëgg la ci wàllu seet laa bëgg ñu indil ma ci ay xam-xam. jërëjëf laaj nga lu am solo mooy danga maa laaj si askan. moo wax si askan waa askan boobu tey ñoom ñoo soxloo ku lay ñaanal yàlla. Mm-hmm. ndax askan bi koo ci gis bi nga am jafe-jafe dëgg la. Mm. lii ñu yor ñun xam-xam la yoo xam ne pour saafara jafe mm-hmm. doomu aadama yi la. Mm-hmm. dañ ko wuti woon comme ku nga xam ne. dafa demoon jàngi xam-xami tubaab tubaab. nekk docteur ku feewar nga dem si moom mu faj la noonu lañ jógee woon itam dama wuti xam-xam yii mu nekk wàllu baatin lañ nga mën si seet seet dafa nekk xam-xam boo xamante ni pour nga gindi doomu aadama bi la pour nga mën koy ñaanal bëri na ko am problème ñëw si yow soo ko seetalut mën a xam problème am xaajom boobu mën a koy faj waaye boo ko seetalee ba xam ne lii mooy problème am lii mooy gàllankooram da ngay gis na boo jogee rek si gàllankoor boo nga jëm pour dindal ko ko si lu gaaw a gaaw kon laaj nga lu am solo mu nekk seet mën naa ko nag sant yàlla bu baax li tam man mën naa ko dama koo jànge woon nit na boo jàngee ba ñëw mbir loolu dañ la laaj ba xam mokk na wala mokkut kon nag mokkal naa ko ku ñëw dañ la seetal seet bu leer boo xamante ni loo bëgg lu la réer loo yeggagut lu la lënt sa bopp bi lépp dañ la ko leer leeralal damay faral di wax ne maay wax seedal ni boo wax bis bu mu juddu loolu du kimtaan mhm. su lu ñuy wax bis bu muy dee loolu itam du kimtaan ndax doomu aadama yàlla da ko tabax si diggante ndox suuf ngelaw safara boo xasee jàpp doomu aadama boobu nga xam rawaanam xam biddiwam dëgg-dëgg yàlla lépp mën nga koy wax ndax yàlla mu nga xam ne moom moo ko tabax yow moom moo lay xamal mhm. kon na seet képp koo xam ne bëgg nga seet bu leer te wér boo ñëwee fii dañ la seetal ba wax la lépp loo xam ne lënt na seet sëy boo bëgg dugg la liggéey boo bëgg dugg la business boo bëgg dugg la mu lënt la tukki moo bëgg a la xaalis boo yor te xam ko si lu koy dugal lan la problème yi yëpp sa diggante ku nga tàqale ko boo ñëwee ñu wax la lépp lu si nekk incha allah. am na solo ma ñëw ci li nga xamante ni moo di wàllu nopp jamono ji nag coow li bari ku nekk naan nopp nopp tey nga ciy def loo xamante ni. Mhm. mën naa ni yow rek laa gis nga ciy assuré nit. ci même mhm. pas 24 heures. alhamdulilah. Mhm. xam nga doomu aadama ba léegi mooy lu ma la wax léegi rek li tax nga man ma assuré na ma dèjà balaa lu wen nga am lu nga bëgg mooy xam fu may jaar. doomu aadama wax naa dafa am si lu ko yàlla tabax. boo xamee si lu ko yàlla tabax ku nga xam ne moo fondement kër gi ñu nekk tey bu ñëwee mool bu nekk xam na fu mu ko teg ak nu mu ko tegee ba tax tabax bi yaa da nga mu ngi nii daanuwut kon bu ñu xamee nan ngay doo jàppee doomu adama yow man nga ngay jàpp si lu duwul sax wen ko tëre doomu aadama lu ñuy jàppul la yaa ngi dégg waaye pour nga jàpp ko xam dafay nekk nit ki boo amee turam am turu yaayam xam biddiwam xam tabiyaam dëgg-dëgg yàlla pour nga jàpp ko lu yomb la mu ngi mel ni leget boo jël rek jël xar mi wala béy bi rek na ko am day ñëw si lu gaaw te euh, doo sonn bu fekkee ne da ngaa bëgg jox rek dem na da nga koy dàqante moom du ko jàpp doo ko mos a jàpp hmm. doomu aadama gën a naqadee jàpp si lu ñuy jàpp waaye moo gën a neex a jàpp si lépp loo xam ne lu ñu war a jàpp la hmm. kon noom nag képp koo xam ne yaa ngi siy déglu a foo mënta nekk nga nekk biir réew wala bitim réew nga am jigéen boo xam ne moom nga soxla mu tëla wala yow jigéen bi nga am góor goo xam ne moom nga soxla mu tëla wala yow sa diggante sa jabar sa jëkkër sëy bi am na problème ah dëgg dëgg yàlla boo may dégg ñëwal gaaw ñu saafaraal la boo doo si am benn problème lu may wax dafay am seede lu may wax dafay am contrat dafay am dëli yu leer nañ képp koo xam ne am nga problème daal boo ñëwee fii dañ la saafaraal ba nga xam ne yow looy joytu sa digganteeg ku ngay joytu moo xam sa jëkkër la moo xam sa jabar la moo xam moodu moodu bu soxla xaalis la si tubaab not tubaab bi la bëgg comme li mënta doo boo ñëwee dañ ko nopp te not ko itam lii moom maa la ko wax te amul werante nag mhm. waaw insha allah mhm. ma ñëw ci li nga xamante ni moo di wàllu ubbeeku jamono ji ndaw ñaa ngi dem ci naar bi mhm. jamono ji ñëpp ngi dem di dugg ci gaal yi tey yàlla sunu borom suturaal la ci wàllu ubbeeku nga tabax ci ñoo xamante ni dañoo am ay entreprise fii ci réew mi dëgg la secret boobu di wàllu ubbeeku waaw xam nga doomu aadama lépp lu maam te ubbeekuwut rek mu ngi sonn amal ay milliards boo bu dugut ubbeeku rek problème day ñëw na milliards yoolu doo xam noo koy liggéey wala doo xam nan nga koy appliquer kon loolu si ubbeeku la bokk képp koo xam ne nag ñàkk nga jamono bi ñàkk sonal na la wala mu sonal la yow say waajur wala mu sonal la ba nga xam ne xamoo fay teg sa tànk yaa ngi si naar bi tey comme nu nga ko waxee wala yaa ngi si tukki mi tey yaa ngi dem di ñaani visa boo demee gars yi dàq la lu nekk loolu yëpp loolu yëpp si ñàkk ubbeeku la bokk doo doomu aadama boobu nag man bu ma déggee man cerno di ma dégg nag bañ may dégloo xol waa ma xel ak koo xam ne bëgg nga njëriñ wala boo ñëwee fi ma yibbi la taal la ba na yëpp dégg la si wàllu alal te lu may wax na du làmbatu jamono bi wax jafe na ndax lu may wax keneen mu ngi koy wax te wérul yaa ngi dégg waaye lépp man lu loo xam ne maa ngi wax si xam-xam la koy teg te yow mu ñëw si barab bi xam nga ne barab bu xam-xam la mbir dañ koy seede te wax ko hmm. jamono bii nag ku nekk mën na wax di sëriñ amul problème hmm. waaye maa ngi lancé appel di ñaan ñu nga xam ne ñooy dem si sëriñ nañ setantal gi ngi mën jëmm jii di wax ak yow ba mu ma seetantelee doyuma la bu moo saxoo téléphone. Mhm. bu jéem a xool numéro bi dama nga seet leneen. Mhm. lii dama ko laaj appel. Mhm. waaye nag xam naa ne xam-xamam fi maa ko gis joon wér na si man te boo ñëwee dañ la si dimbale taal la ba àddina yëpp dégg la si wàllu ubbeeku. si wàllu alal xaalis dana la yomb alal dana la yomb. te lu amu si benn kisaak incha allah rabbi. mu ngi noonu am na solo mën naa ko seede ndax wa ma shahidna. illaa bimaa alimnaa kon loo xam ni fekkee ma ko mhm. ma ñëw ci li nga xamante ni wàllu bayre da mhm. ci liggéey anam boo xamante ni mhm. nit ñaa ngi am bayre ñu leen di romb ñu leen di tudd dëgg la mais sa xeetu bayre day ànd ak mos dëgg la secret bayre bi <laughs> bayre dëgg dëgg bu am tam mos moom du wut bayre <laughs> déedéet mukk <laughs> bayre moom day ànd ak mos ngay téye dara ñii da la tudd ñu lay tudd rek te doo mos amu njëriñ <laughs> bu waa ñu lay tudd sax fu ñu mujjee dañ lay mujj jéppi amu lañ lay wax mm-hmm. ah sa waay amu da ngay wax si moom ba bëgg de waa du la faale <laughs> <laughs> waa kay kon loolu yëpp mooy bayra boo xam ne amatu njëriñ bayra nag man bu mu siy defar dañ la tudd àddina dégg la mm-hmm. te tur woom ñu lay tudd day indaale dara mm-hmm. maanaam ñu lay tudd yow dañuy sawar pour jox la ñu lay yaakaar yow da ngay am loo leen jox kon bayra bu may liggéey yow kat bi la yow mbër mi la yow politicien bi la yow tukkikat bi la yaa ngi si biir tubaab bi te mënoo fekk ba am fa xorom seen biir lu ñu yor mënoo fexe ba jot si ngir yàlla jot ma maa ngay bayre boo xam ne boo ko laalee yow ima bu ñu takk la wala bu ñu sango la lu ñu lay teel si kurus la àdduna dañ la dégg sa alal àdduna dañ la dégg itam sa bayre boo xam ne foo jublu ñi bëgg la loolu amul werante bu dee xale bu jigéen bi loo nga bëgg ñëwal bu dee xale bu góor bi nga bëgg nga jigéen ñi topp la ñëwal amul werante lii may wax ma beere bu saf la kooku xam ko insha allah mhm. am na solo ma ñëw ci li nga xamante ni moo di wàllu kaaraange mm. kaaraange nag damay wax ne tey bu doon oto ma ni mooy buntu dëgg la mooy caabi bi mooy port bi dëgg la tey nit ki mënta dox sans kaaraange te jamono ji gis nga ndaw ñi xamatuñ fu ñu jëm dëgg la ñëpp a ngi sànku ndax ñàkk kaaraange dëgg la waaw tey ay secret dëgg la ñu ngi si yor secret yu wér yoo xam ne ñun amuñ werante si lu ñu def mm. képp koo xam ne ba nga aar sa jëmm ci image si bët la wala si làmmañ la wala si njabar la wala si xeex la wala si fetal la wala si dégg jaasi la lu mënta dox nga bëgg a aar sa bopp yow ñëwal gaaw boo ñëwee dañ lay jox xeetu kaaraanga yoo xam ne yow fi fii nga koy door a déggee waaye da nga xam ne yow fekk yaa lañ jëfandikoo kaaraange da nga la boo ko sangoo da nga yëngu ne dana am luy génn sa yaram comme dégg nga boo doon naan lu tàng nu nga yëg mhm. lekk lu saf kaana nu nga yëg ne li saf na kaane mhm. lu si mënta doo yow da nga yëg ne da am looy sentir ne muy génn sa yaram mhm. kon ko bëgg kaaraange bi wér ba kenn du la mën a yàqal entreprise nga nekk bëggoo fee yàqule wala yaa ngi si bureau boo xam ne bëgg nga fee samp bëggoo kenn ku fa jëlee yaa ngi dégg wala yaa ngi liggéey liggéey boo xam ne bëggoo kenn ku la ko yàqal bëggoo làmmiñ yàqal la ko bëggoo bët yàqal la ko a bëggoo liggéey bëggoo njabar yàqal la ko bëggoo dara yàqal la ko ñëwal ma aar la samp la ba nga xam ne yow ku la jógale tamit moo yàqu waaye dootu yàqu mm-hmm. moo xam ne nu mu la mënta jógale wala si baat la la jógal boo ñëwee rek naa li jënd sa problème ba nga xam ne ku la jógal ci moo yàqu lii amul werante karan gu wéram ku bëgg ñëwal fi ñu sax am na solo waaw ma ñëw ci nga xam ne nag jamono ji yëngal na kër yi mhm. mu di wàllu impuissance sexuelle tey maa fekkee mhm. ñii tuddee la ay doom dëgg la ñuy jël seen i doom dénk la ko ci daara ji dëgg la loolu wér ñoom ñëpp amuñu woon yaakaar ni dëgg la dinañ demati bay am njaboot dëgg la sa secret ci wàllu impuissance sexuelle mu di wàllu ngóora sant yàlla rek ndax ngóora doomu aadama dafa nu ko yàlla bindee si ay saddit hmm. léegi-léeg nga gis koo xam ne ñu ne loxoom bi mooy am problème léegi-léeg nga gis koo xam ne ñu ne bët bi mooy am problème hmm. léegi nga gis koo xam ne ñu ne nopp wala tànk bi cër yi dañoo bëri te wuutee hmm. waaw benn bu si nekk rek benn bu si nekk rek mën ne am problème waxtu woo xamante ne benn am na si problème rek boobaa doodu jëriñ moo xam loxo bi la wala tànk bi loolu lu mu mëntadoo waaye itam képp koo xam ne da ngaa nekk góor am ngante si sa sëyee sa soxna wallaahi yaasin boo ma jotee yow ngàntaloo jeex na. Mhm. amul werante mhm, bu dee doom nga bëggoon dana am bu dee sa jawar kontaan nga bëggoon dana am wala yaasin lu wér la lay wax. si ay garab yoo xam ne ñu ngi ko yor di ko jëfandikoo si ay produits yi. waaye itam si ay gàllaay yoo xam ne ñu ngi koy liggéey. Mhm. am na beneen boo xam ne ñu ngi koy liggéey si sakara munaat. képp koo xam ne da ngaa bëgg a dund téeméeri at. te yaa ngi ànd sa kattan. di am soxna yoo xamante ni yu ndaw lay doon te nga ko ne daa am ñoom doom wala fexeel jot ñu sakk mun naa boo képp koo xam ne jox ne la nga ko sa ndigg amal téeméeri at yow da ngay deyaale kattan loolu amu si wérante xam-xam yu wér la séeréer si xam ne loolu waaw insha allah ma ñëw ci li nga xam ne nag xam naa fa laa jeexale jamono ji nag sonal nañu bari mu di wàllu ndoxu siti hémorroïde dëgg la ballottement dëgg la ngay gis ndaw loo xam ne day dox jiital biir ba dëgg la ñu naan ko da am appétit dëgg la fekk naa ay ballottement ndoxu siti dëgg koo xam ne yaa ngi ko yor secret baa ngi fi mhm. boo ñëwee rek ñu dimbalante ndax am na koo xamante ne tey fi mu toll nii fu mu toll biiram mu ngi yóoxu am na koo xam ne fu mu toll nii mm. fu mu toll rek yaa ngi dégg mm. yaram baa ngi tàng ndax ndoxu siti bi mm. am na koo xam ne fu mu toll nii fu mu toll rek wee yaa ngi dagg am na koo xamante fu mu toll loxo yaa ngi wow wallaay loolu yëpp ndoxu siti moo koy def mm-hmm. ndoxu siti day royaatal ba royaatal si deret da ngay jur doom sax ndox siti bi tuxu dem si moom te fekk yow yaa ko yor fa ko kon ne képp koo xam ne yaa ngi yor ndox siti mhm. yaa ngi yor émuri te moom mooy dem ba yóbbul na si ñàkk kattan mhm. sa kër di tas te yëgu ko mhm. bëri na kër yu tas maa ko defaraat comme ni nga ko waxee sànq képp koo xam ne nag ndox siti mu ngi lay sonal di yàq sa yaram émuri mu ngi lay sonal moo xam bu nëbb bi la wala buy génn bi la wala boo ñëwee fi dañ la ko saafara ba nga xamante loolu nag dañ koy baaxee jàmm yàlla fu ñu waaye mënta dégg na ñëw dañ koy yombal mhm. ndax feebar la yoo xam ne ku néew doole rek mhm. boo saagun doo ko faj mhm. moo tax mu ngi noonu gars yi nga xam ne yéen a àndoon ak ñun euh, mu di Cheikh Thierno Dieng képp ku ko bëgg a jot rek numéro téléphone baa foofu ak adresse bi ah, ñu ngi jégalu nag clients yi nga xam ne vraiment ñu ngi toog ci biir di la xaar alhamdulilah may 10 minutes parce que tey xam nga ak fi réew mi toll day dëgg la nga xam ne bu yi dëgg la ñu maye ñu tuuti rek ci euh, a askan bi mhm. ñoom lañ fi nekkal ñoo fi nekkal mhm. dafa am foo xam ne ñoom foofu lañ féete ñoo am fu ñu leen féetee rek jaamu yàlla yi nga wax ne ñoom nga fi fekk itam ka zalika waaye daal ala kulli aali maa ngi wax askan mi ne fu waaye mante nekk yàlla fekk ak lu waaye di yóotu yàlla nga ko jot si anama yomb nag képp ku jàq yàlla na la yàlla dalal sa xel képp ku am problème yàlla na ko yàlla rocc waaye daal fii la mbiri di saafarawo kon waa xilu dawaana alhamdulilahi rabbil alamin salaamaaleykum mu ngi noonu numéro téléphone baa ngi noonu ko soxla rek mën nga ko woo Cheikh Thierno Diagne di